Ni de toi, ni d'un autre, m'a rien donné. Lâche pas et crois en toi, change les données. Oh. Ne cherche pas à savoir ce qui se passe sous les bonnets. Sache qu'on ne se contentera pas de ce qu'ils ont abandonné. bas lañu bëgg suñu bas lañu bëgg foog seen nekk sa bas sama bas bopp tax may liggéey guddi bu battre bi baaxul ma bluffé ba gagné ak naba doon buti jolof yee at buri buki buki foog nga buki lekk peppu min deeb bi bloqué sa yoon ko de yàgg naa li ma bëgg di ko dund sama xel yàgg naa te wàcce wu ma sama ay xeeb boo yaraax jànge maris goûté bi du ma neex cole paas bu libu si school bi fi te yàgg tax ma dem yàgg doxal ni may kong pourtant loolu la woon tëju ma woon fenn loolu nekkoon sama blème dama doon fóot li may ci naat bi te di yeewu lay bi dal ci muy mel ni lu ñu soog a weer maa doon calme ma boy am sama boss gis bëgg gën di yokk sama boss sama boss succi sama drog toi ni d'un autre, donné. Nothing.